duñ ko fay fàtte même bu dee rallonge duñu fay rallonge bi dañuy ñëw rek seen téléphone faible na ah dañu branché mm. man par exemple dama am chargeur boo xam ne dama koy yóbbaale ak bi may bàyyi sama kër mm-hmm. au cas où parce que da ñëw bëgg dindi beeg ubbi beeg yooyu te yëpp damay vérifier normes yi ndax baax na bu baax baax sa xamoo ko parce que li fiy wàcc ci conteneur ci chargeur demoo padduwaa moo tax man xoolal ay chargeur marché yi yoo moo tax nag euh, Mor espace fon xam naa prochaine fois dinaa def ak moom ITV ñoom mm-hmm. euh, ñoom moom espace fon ñoom aussi dañuy di vérifier bu baax lii nii des fois ñu indi benn affaire boo xam ne ci biir conteneur bi léegi di nga gis conteneur bu explosé wala dara power bank yi ñoo koy def ah te ñoom respecté wuñu ay normes power bank bëri na ay faux mhm. power bank ci dëkk bi mhm. torop torop ay power bank yoo xamante ne nii lañ toll lu ndaw loolu c'est pas des power bank power bank mooy banque de charge dafay yàq sa téléphone sax comme li nga wax ni aussi bamba fépp yi bamba fépp fépp waaw mooy chargeur sam kii mhm. ko ko branché te loolu sa baaxul dafay yàq téléphone bi man nag moom dama bàyyi bàyyi able chargeur ndax chargeur u iPhone 15000 francs lay jar wala 10000 francs mhm. nga mhm. Asma moom bien vrai que X Max la yor man uh-huh. XR laa yor yow 11 Pro Max nga yor kii mi ngi yor 8 euh, plus paasan yor euh, Samsung am mais paasan day jël euh, chargeur u <laughs> non non non juste <laughs> dafay jël chargeur u Android beneen boo xam ne mm-hmm. Nokia wala autre chose mm-hmm. beneen marque moom mu jël ko branché ko ci téléphone am c'est vrai que mi ngi koy chargé mais am na ay dommages yu collatéraux yoo xam ne da koy mm-hmm. ngay xëy batterie bi gondale wala dara ku ci mel ni euh, waa Apple nga xam mm, nga xam ne moo di doo bi déjà war nga jënd batterie bu bees war nga jënd mm-hmm. doo bu bees. te nee nañ téléphone boo xasee ba changé batterie d'origine am amatoo original. Mm-hmm. même xanaa keneen jëlee batterie ci téléphone am jox la ko yow pour nga dugal ko mais ñu ci bari ñu ngi leen di nax naan leen chargeur bi batterie originale la wala dara alors que second choix la Apple defarul loo xamante ne élément de remplacement original ça coûte hyper cher te maison Apple Apple rek ñoo koy jaay donc mhm. Sénégal gisaguma fi représentant Apple boo xam ne dina certifié carrément di nga fi gis ay maître Apple et ñoom ci téléphone dañuy yëngu ak lii di AirPod et euh, vraiment daal euh, respecté leen affaire yi te ngeen vérifié bu baax chargeur bi ngeen di jënd mhm. C ak E comme ni nga ko wanee léegi ci image bi vérifié leen ko euh, parce que kër lu ko taal léegi dafa yomb mën nga ko fa bàyyi parce que xale yaa ngi fa bonn bi et tout en général bon yi ma gis danul sama xel ndax jànguñu ak parfois électricien yi dañuy mel ne man rek tamit wóoru incendie yu bëri. loolu la koy créé mais dañuy jël léegi aux HLM Padois xam nga foofu la centre commercial bi nekk. Hmm. da ngay gis ku jël bant daal di euh, daaj ko noonu defar rallonge am dugal ci ay euh, trou am créé ay prise di ko jaay 2000 francs wala 3000 ba pare nga jël chargeur faux def ko ci rallonge bi foo branché ko ci courant dëggantaan michu bi lay doon. <laughs> michu bi lay doon nag bi nga ñor de. gars yi nee nañ man mënuma laa muñ waaye dafa mel ni paasan moo la mënul muñ. paasan daf ma waxee rek mu ne woy. <laughs> sama xarit la. Euh, dafa neex. Mm-hmm. dafa am mm-hmm. ku nekkalu yàlla mbay. Mm-hmm. nga xool rek ree xorom la ci cin dem am na ku ma wax loolu ne ma mais seen waa jooju laa mais moom moom daal dara frégewu ko. waaw moom moom dara frégewu ko. dëgg yàlla c'est bien. so hmm. no moom laay wax. c'est bien day doxal àddina ñu di la hmm. jaajëfal bu baax a baax bi gi ah sa rubrique am na solo waaye sa jëmm fii tamit am na solo lool man yaay sama xorom. man bu ma la boolee sama cin li rek day saf daal macha allah. wax leen sama raq bi mu bàyyi ma. princesse Linguère la tudd yaa faatu madame Mbaye sonal na ma trop mi ngi may yónnee du n'importe quoi sama téléphone à tout moment mën naa disjoncté sa kaw sallam ba demoon fële ca dëkkëb sëtam ba mm. wala maamam ba mm. Cheikh na Cheikh Tidiane Chérif mm. dafa mel ni mu ngi ci kër gi dafa mel ni mi ngi ci kër gi donc si noonu la ñuy jublu si moom euh, ñu daal di dem rek retrouver ki nga xamante ne mooy Ahmed Aïdara na moon nañ ko mu fas yéene ñoo faram fàcce li gën a fës ci boppu yéene tout de suite. Ahmed na nga def. ngi nii rek. waaye mais gis nga yow fi nga fi nga de. macha allah. maa ngi jiital nuyoo bi kooku féete la à mu di la fay. ay dara Karara mu nga dendal. koy maa koy maa ngi koy siyaat ah maa ma foo leen fekk daal nañ leen jiital ci nuyoo bi. Mm-hmm. boo ñu la fekkee nga toogit wàccal jox leen. Mm-hmm. moo tax ma jiital ko de ak li muy nekk soxna yëpp yëpp yëpp. Mm-hmm. moo fa bokk ak yonent. ay dara karaara maa ngi lay nuyu dégg nga. sant Guèye maa ngi doon ziar eh, eh, eh, waa léegi nga ne chargeur yi. chargeur yi dafa am lu ci ciy respecté mbaa sa am na CE. xam nga lan jaaxal waaw. dëkk itam dëkk yi les anglophones la waaw seen chargeurs yi bokkul ak francophonie. non no bokkul mais aussi ñoom euh, bul fàtte ni que Samsung c'est pas une marque française ah. waaw. xam nga loolu. waaw te pourtant def nañ ci CE. te ñi ngi koy defaree euh, ñi ñii ñi ngi leen di defaree en Californie ñii ñi ngi leen di defaree en Chine. aussi n'oublie pas ça. waaw mais États-Unis laa waaw wax nga dëgg mais euh, xam nga téléphone asma bi. Apple la mais Apple aussi seen téléphone yi ñi ngi jóge la plupart aux États-Unis Euh, kon xam nga ñoom peut-être dinañ respecter normes yi. waaw am na EAC am na CE am na. yëpp respecté. am na ah. daal vérifier bu baax sa téléphone. yow yaa ngi dee Ahmed de boo xoolee image bi dafay mel ni da nga toog ci ginnaawam di ko dee. seetlu ay man maam Sidi waaye man Sidi mooy fay. Oh, dama kontaan si moom. kenn du maam kenn du maam. maam kenn du moom. kenn moom de mais Ahmed man ak moom dañu xaw nduro couleur seetlu leen loolu. ah suñu saumon yi waaw da ngeen waaw da ngeen assortir. ñoom ñaar dañoo non plateau bi dafa ñëw rek couplé dañuy waajal Saint-Valentin. Ah, de jour J moins deux moo tax deux deux deux. mooy nga sa gémmi nga dañuy waajal Saint-Valentin rek nga ne yii lan la lu xew yow tamit. Ahmed la deux galons la wala benn. man damaa xam ne sama premier janvier bala 31. waaw. lépp man 14 février. ah ñëw ma daal bëgg naa. ah lii nag. xam nga xanaa wa feete Saint-Valentin sax dafa mel ni. Mhm. yow xawoo bëgg ki nga nekkal wala xawoo ko jox cër daal. dëgg la bis yëpp 14 février a war a ne. Mhm. ndeysaan. waaw moo tax 14 février kenn du ma ci dégg kenn du ma ci gis. mais nag mais nag xam nga bës. mais nag nag nag day lekk ngooñ. Ah? dama ne. Ah. dafa fekk ni dafay am xam nga bés bu nekk da ngay dund mbëggeel mm-hmm. waaye dafay am bés boo xamante ni da nga koy da ngay màggal bés yooyu yëpp. Mm. ba tax na Saint-Valentin nag am na solo. man yooyu àjjuma la ak samedi ci man. <laughs> am na solo lii moo tax nga nekk sa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teraanga rek nga xam dëgg rek nga xam lu baax rek xam ah, kon nag dañuy war a di roy ci yow saa su ne alors ci noonu lañu sallallahu alayhi wa sallam ñu daaj la euh, nga fas yéene tàmbale rek euh, li gën a fës ci bopp yéene kaay ak ñun. fan ngeen koy tribune tribune. tribune. waaw sa biir kër daal. waaw ah, ah waaw. <laughs> xalam di ca jaay barka yaay borom. xam nga tribune yéene kaay tey paasan. Mm-hmm. dafa xëy ñëw ak ñun suñu diggante ak Canada. Mm-hmm. waaw fi mu nekk nii daal bu doon xam naa ne daal ay soxna lañ dafa mel nii waa ji daal dafa ñuy cokkaas di ñu dragué. <laughs> dégg nga loolu. nee na 500 milliards. 1 milliard de dollars. mi ngi nii Canada ngi nii di gën a renforcer nag sa coopération ak ñun. dégg nga loolu est-ce que yaa ngi may bàyyi xel. waaw le soleil yéene kaay nañu looloy dëgg. waaye sax ak premier ministre bu Canada nag sax sax sax sax sax maam si dina loxo bi gaawaay. acca. Mm-hmm. dégg loolu. moom daal le soleil yéene kaay loolu la wax tey ñu jóge fa maam sii di ñëw ak ñun ci l'observateur l'observateur nag moom euh, paasan waaw tey. gouvernement au Sénégal bu ñu neexee ñu ne Macky dafa metre en garde. la France. ci lu mais mais dama ko tàccu fajar bi. démb dama dama tëb. démb paasal. waaw. ambassadeur France fii ci Sénégal. Mhm. waa ji waa ji sax moom dafa osé de. Philippe Lalliot Philippe Lalliot dama sob ah! <laughs> yow gouvernement Sénégal wax ne avril deux mille vingt ci la TER bi di commencé cokki cokki un gouvernement état bu souverain moom boppam yow nga nekk simple ambassadeur rek. nga ne leen li ngeen wax amul. xanaa loolu mooy terre bi ñun France ko moom. waaw xam nga gis nga bukki mm. laay bu yebay gaynde ca doxin gala. lay mm. waaw waaw xam nga tonton buy dox naa nii di cakas ci góor. <laughs> ah, ah góor. booy dox da ngay dox doxu góor. Mm-hmm. da dox nii gaa yi xam ne kii góor la. Mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. même booy reculer ni nekk sa ginnaaw sa duñ la ñemee xool. mais góor guy dox di cakas. <laughs> di mel ni. di daagu. du bukki bi da lay day yëpp gaynde gi gaynde buy dox xam nga mu tegee benn tànk ñëppay xam ne ah cum sëtu ku tedd kaa ngi nii di ñëw mm-hmm. loolay dëgër baatu góor day dëgër du am am laam-laamee tànk góor dëgër mm. xanaa accolade bi sax léeg-léeg madame ne la waaye yow chéri doucement rek <laughs> loolay dëgër mais ambassadeur bi ak DG wu Eiffage SA ba pare ministre Omar Youm moo bind affaire bi de. Mhm. ñu weddi ko waaye gis nga bi ko l'observateur laajee confirmé ne lii l'observateur bind. Mhm. yow ana ambassadeur rek ñu kii. ba pare ba pare bi yoon bi yoon état Sénégal dafa wax ak ak ak ak ton. fulla non président. <laughs> fulla jaay Dakar fulla jaay Dakar te ci ñun la fekk baax. félicitations. dégg nga lii waaw félicitation moom vraiment à monsieur le président de plaisir. à tout son gouvernement. voilà merci beaucoup. le quotidien yéen a kaay ñëw ak ñun ci Abdoulatif na livre. namoon nañ ko ci moom Sénégal l'histoire en marche gis nga ko nii wax na ci plan Sénégal émergent pétrole bi gaz bi hydrocarbure ba ci juróomi atu Macky quinquennat lii daal la porte parole président de la république def. xanaa bi xanaa bilan la. ah dafa mel ni bilan. ah xam naa bilan la muy parcours wala bilan ci septennat <laughs> ba la ñu génn. Hmm. aca maam si di ñëwal gaaw waaw kay. Viviane ngi nii Vivi déranger xanaa moom